même mon très moo mon ami de valeur noo da koy yëkkati bi da nga koy da nga koy tàllal Formose Mendy mais kontaan naa sama xol seet na jaajëf mon très cher thank you my brother mais mais mais mais mais Pape Abdou Cissé mais du ma ne gulet de. du ne gulet de wallaahi azim du ma ne gulet. kontaan naa de yow ndeg fu ne ndeysaan fuñ daje rek jox nga ma ensemble quoi. sama xol seet na yal na yàlla fay jaajëf mon ami thank you my brother